ñu ngi leen nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm waaw wax dëgg yàlla man dama si dolli nii fanaan mi ñun bu fekkoonte ni ministre bi wala waxtaan naa ñi nga xamante ne ñoom ñooy mool yi kon di ko signé nii li waral suñu digganteeg moom mooy manque de communication mool yi dañu soxla seen baat mool yi soxlootuñ benn président quai de dem di leen waxal wala président CLPA di dogal ay dogal yoo xam mool yi ànduñ si mool yi dañoo sonn fi mu nekk nii ñu ngi ñuy dogalal ay fanaan te ba te jaay géej gi bato yëpp jaay géej gi bato yi bato yi di napp heure bu leen neex bu ñu tëjee yaranka terewul bato yaa ngay napp yaranka ji bu ñu tëjee fanaan bato yaa ngi fanaan di yàqal mool yi seen mbaal yi di napp géej gi ba géej gi jeex ñun ak bato yi ñoo bokk fi ñuy mbaale dogal bu bépp bu ministre bi jël da ko war a jël waxtan ci moli moli mool saytu ko waye bu fekente ne ay ñaari nit ñet lay tok di waxtanal ñuy dem di ci wax ci batu moli yi te duñu mol moli d'accordu ñu ci lolu benen bi moy problème machine yi machine yi dafa cher ba paré te qualité bi baxul waxuñ ne doonu ñu won jox machine yu bax mais bu dé baax na ñun la baax na kay bu boné buñ la ko waxé ñewal nangu nangul ni li baxul firnde baangi ni firnde baangi ni ñun au niveau de Joal fadiou ñun suñu cadre ci lañuy waxé ñun suñu kàddu dëkk ci la ñuy waxee bëggatuñu benn nit dem di waxtaan ak ministre bi te du suñu kàddu ñun mool yi bu fekkee ministre bi daa soxla mool yi na ñëw si mool yi wax ak moom directement parce que ñooñu ñu ngi koy nax naan ko mool yi kontaanu kontaan nañ muy dem si président Macky Sall naan ko mooli kontaan nañ ngir simple subvention bi mu ñu defal fekk mool yi naqar am nañ seen naqar ñi ngi koy nax nag bu bañee président Macky Sall am déception ëllëg si mool yi Omar Gueye na wàcc si fii si mool yi ñu wax mu wax ak ñoom te xam ne ñiy dem si ñoom naan ko mool yi kontaan nañ ñi ngi koy nax ñi ngi koy nax dañuy bañ ëllëg nag mu am erreur suñu diggante ñun ak président Macky Sall mu yaakaar ñun mooy dañoo jóg pour xeex ko Sénégal moo ñu ñor lépp luy avancé loo Sénégal ñun dañ siy dem ba jeex ñun nekkuñu fu ñu yàqee dëkk bi ndax moo liggéey rek la xam secteur de la pêche bii ñu nekk ni ministre bu fi liggéey li mu war a liggéey bu jaara yoon bu la neexee président bañ laa fay ñun moo li ñu fayal ko suñu bopp amul benn politicien bu nekk suñu ginnaaw nag ñun liñ ko dañoo am coono moo tax ñuy taxaw di wax am na ñuy dem si télé yi naan ministre yi ñoo ñii ñoo nekk suñu ginnaaw di ñu financé du benn politicien ñun politicien yaakaaruñu leen ñun suñu bopp lañ yaakaar suñu mbaggum bopp saa ñu xëyee ci la ñuy res suñu bopp amul benn mool bu taxaw ne lii gouvernement mas na ma koo defan ñun duñu dem si benn gouvernement di def leen ministre de la pes bu liggéey ko war liggéey def li def li war ak li mool yi bëgg ñun bu ko neexee benn gouvernement bañ koo fay ñun mool yi ñu fay ko gaal yu bari ñu ngi aju loolu moo leen dal yàq nañu liggéey bi nga xamante ne bii pêche artisanale bi moo a doon liggéey ngir panaan bi parce que kii mbaal muy filature bi moom buy mbaal guddi du gis mbaalu kii bi mool yi. day ñëw rek mbaal yëpp xëcc ko sànni ko ci àll ba sa mbaal yëpp réer. dagg seen drapeau yi. dagg seen drapeau ngay daraage ñaari fan ñetti fan fukki fan doo say mbaal. am na gaal yoo xamee ne noonu la ñu maayee. te guddi gee ko waral te guddi gi moo ko waral loolu rafetul wolof fu na bu sulu yooyu te bu giir demug neen bu ñuy xajaale daal nañ koy def 6 mois à 4 mois. ñu xàjji ko ci digg bi ñu bañ a loru ñun mool yu ndaw yi ñooy loru mais gaal yu mag yi du ñu loru.